coalition sàmm sa kàddu euh, moo ngi leen di delloo njukkal bu baax ñu nekk si biir réew mi ak nekk si bitim réew mi muy mag góor ndaw wax kon amuñu fay di euh, sargal bu baax a baax a di wax ne loolu nañu motivation ak détermination ngir nous sommes du bon côté de l'histoire di santaat bu baax a baax tamit sunu borom moom mi nga xamante ni moo ñu defal kàttan ak itte ba saa bu ñuy xool ñii noote ak ñii tappale ak ñii jaay doole ñun duñu fa nekk kenn duñu fa gis li xew honorable Thierno Bocoum moom mi nga xamante ni keroog exceptionnellement d'ailleurs moom la yàlla dogal mu ànd ak Bougane ci otoom ndax xëy na sunu borom mi dara xamoon ne ñi ñu ko seqal ci ay ndax bu ne ko njëkkee garde à vue li suma mbokk taskatu xabaar naan révélation loolu tamit révélation lay def garde à vue euh, boole ci ak aussi ak benen chroniqueur bu tuddu Kader Dia guddi googu diggante palais ak primature xawna naa ndax bobu liñu ñu bëggoon mooy téye leen en réalité ñi am information yëpp xam nañ ne keroog bokk na ci kilifa yu mag yu and ak ñom né leen attention tous les signaux que nous avons sont au rouge par rapport à ces arrestations qui n'ont aucun sens bàyyi leen leen ñu ñibi classé sans suite wa ndax xel nanguna Cheikh Yérim PV lire PV bi c'est factuel je ne parlerai que des faits ngeen lire PV bobu gis na mu ñaké solo ñiko lire am nañ ñi doon défendre lu mel bañ gis ñu ci défendre le contraire totalement de ce qu'il défendait hier moi, j'en appelle au bon sens et à la raison de tous les défenseurs des droits de l'homme mais surtout de tous les citoyens épris de paix et de justice nañu delloo ci seen xel xam que li ñu dafa yées li fi nekkoon donc pour revenir ci garde à vue nous nga xam ci la de bu wut ay pexe ngir attention les signaux sont au rouge

nga déglu ko ba pare et ces dossiers ont été classés sans suite maanaam dara amu ca waaye téye nañ leen toroxal leen téye leen garde garde à vue l'humiliation donc boobu foiré ñu ne il nous faut ñu amaat beneen occasion ñu tuddoon ay faucons jàppoon nañ ne faucon wax dëgg yàlla 24 mars lay yem 2024 ñun loolu lañ foogoon ce qu'on appelle les faucons les sax dafa mel ni nekkatuñ ci palais bi léegi xaw nañoo bari barab yu ñu nekk xam naa ne beneen bés dinañ leen wax fi ñu nekk waaye léegi bari nañ ay barab ci ci ci réew mi faucon yooyu daal di ne léegi waa ji moom ak gars yi nga xamante ni ñoo daje ci coalition sàmm sa kàddu kàddu gi ñu tàmbalee yi yitteel na waa réew mi ndax gis nañ ay kilifa ñoom ñoo ko ŋànk waaye gis nañ ñoo xamante ni at yiy jàll dañoo sacrifier lu bari ngir seen réew à commencer par la tête de liste. Ces 20 dernières années, cet homme que vous voyez devant vous a tout donné au Sénégal. Tout. L'humour d'adulte politique Amoul, vous êtes tous témoins de ce que Barthélémy Diaz a enduré en politique. Bataille Yalla Dogal, wa Dakar confié que la capitale du Sénégal. mais comme tête de liste, tu n'as pas à raser les murs. Benen aussi, moi, ceux qui sont arrivés au pouvoir aujourd'hui savent ce qu'ils doivent aussi bien à Tcherno Bokoum qu'à Barthélémy Diaz, qu'à Bougan Ils le savent. dofuñu Sénégal li góor gu baax boobu tudd Kéba Mbaye doon wax naan ñëpp tëdd waaye kenn nelawut kon on sait ce qui se passe et vous êtes les historiens du présent yéen journalistes yi xam ngeen bu baax li xew et heureusement keroog bi ñuy dem Bakel dañoo yóbbaale woon ay taskatu xabaar moo tax taskatu xabaar yi demoon keroog dañoo taxaw ligne li ñenn ñi doon wax surtout certains manipulateurs mais mënoo koo ne bokkalum ak yow xalaat nga ne tey ma yàq la koo ne bokkalum ak yow xalaat tey yow ku bon nga loo bon bon bon bon bon bon boo àndeek ñoom baax nga loo baax baax baax boo àndut ak bon nga mais on est où on est où lolu c'est pas possible et ça ne passera pas nit ñi li ñuy wax dañ koy tek ci sen xaqullahi taala kum neex nag na ko sunu borom waxee ci al alxaqu min rabbikum sunu borom moom moo détenir la vérité bu la neexee nga gëm bu la neexee nga weddi ñun loolu foofu la ñu teg suñu tànk li ñuy wax nii dëgg la te dañu ko fekkee Bougane Gueye Dany keroog bi ñu demee bi muy dem gis bu président de la république di dem ñun ñii ñëpp dañuy wàcc tali bi bàyyi ko mu dem parce que dañoo jàpp ne day doxi soxla ñëpp te kenn ku ci nekk ñun sa soxla ngay doxi loolu moo tax ñu koy bàyyi muy dem kenn eggul ci bañ dof dof bo xamanteni président de waaye bu boba da ngay gis ñu jalonné président chaque jour mu fat ñu fi Dakar xeyna ay soxla bopam sax lay doxi dëkk na fi King Fat Palace fat ñep sonal ñep ñu bayiko muy dox ay soxlam donc il y avait pas de jalonnement c'est archi faux il y avait pas de jalonnement de la gendarmerie et le, le, communiqué de la gendarmerie, malheureusement, n'honore pas cette grande corporation. Le communiqué, ce communiqué-là, c'est un communiqué à charge. La gendarmerie a pris la place du procureur de du du de a pris la place du procureur mais a pris non pas la la place du procureur de la République mais la place du procureur du pouvoir peut-être même de la primature. Et c'est ça qui est dommage. Nous avons une information. Et le, euh, la tête de liste de l'honorable député Barthélémy Diaz, c'est-à-dire que Sam Moussa Kadou, nous pas démanteler cette coalition. C'est ce l'intérêt est là. Qui l'a fait goudi, qui l'a fait bëccëg. Nan lañuy nous def ba ñi kaddu gi ñu yëkëti am sens. Demb Tamba bi ñu nekké Bakel les populations de Bakel nous ont témoigné nous ont témoigné ma profite profito di la famille Diakité la famille Kébé ces populations nous ont témoigné beaucoup beaucoup de compassion à l'endroit du président Bougan Gaye même la gendarmerie à Bakel a fait preuve de malheureusement instrumentalisé par le pouvoir en place comme aussi le procureur de Tamba a été tout sauf un procureur de la République il a fait poireauter l'avocat de Bougane Gaydani pour attendre des ordres qui devaient venir de Dakar pour tout simplement te ko Il yemuñu ci ko fa que gis ngeen des conditions dégradantes ko ngi a Sénégal yépp di woo sénégalais yépp yi nga li ñuy def Bougane gay Dany jamono bi may wax ak yéen ci tanki toroxal ko ngir yàqu ko la bëgg physiquement nak la nekk di wax conditions yi ñu ko man limay wax ni j'ai reçu un coup de fil aujourd'hui de Tamba qui nous renseignait sur la situation bi nga xamante ci lañ nekk bima ma coupé sama téléphone dama dama dama dama jël sama téléphone wo ñi nga xamante ni ñoo yëngu dans les organisations des droits de l'homme au Sénégal té ñoo ngi leen di wo ñom muy Seydi Gassama Amnesty International muy le doyen à l'unité Babacar Ba forum du justiciable ak ñepp ñi article 19 ak ñepp ñi nga xamanteni ba tay ji taxaw pour défendre ses valeurs comme niñ ko défendre won demb ci diomay comme niñ ko défendre won ci Ousmane Sonko gaayu gaaw faté yoy nga xam li ñu fal leen que justice souffrir dans ce contexte là nga am yow ñu lay dem au lieu que nga nga ci problème sénégalais tu as décidé de survoler les problèmes des sénégalais le président de la République a survolé les problèmes des sénégalais et c'est ce qu'il fait depuis 7 mois d'ailleurs mais quand tu prends yow li tax ñu fal la def ngay survoler les problèmes des sénégalais mais laisse au moins à ses citoyens d'aller au contact des populations et c'est ça que nous avons fait ñu ne len nakarina metina. na fa démé dinañ fa fekk xalé xam ci dinañ fa fekk enseignant yoo xamante ni jëlaat nañu ay pirogue ñibbi te école tijji na dinañ fa fekk ñoo xamante ni mënuñoo dem ci jàkk ji julli ji ndax jàkk ja fees na dell ak ndox dinañ fa fekk jigéen ñoo xamante ni tey buñ toll ci diggante amuñu lu leen génne foofu pour ñu dem abi doom mais le président et le premier ministre ont décidé de ne pas y aller nous on a décidé d'y aller ñu ne ñu du ngeen ci dem mais mën nga bañ a yërëm nit ñi mais bu nit ñi di am ñu ñu yërëm mais bàyyi leen au moins ñoom ñu yërëm leen

Et c'était la meilleure manière de donner une dimension politique à ce dossier. Moi, mobiliser le parti au pouvoir qui a autre chose à faire, mais de venir devant le tribunal perturber les gens jusqu'à mettre la pression sur le procureur parce que le procureur dem def la relax à Bougane parce que Gaïa yang mettre la pression ci biti. C'est ça la stricte vérité. Nous sommes en face d'un pouvoir qui, qui est prêt à répéter les erreurs du passé concevoir le pouvoir comme un instrument d'enrichissement illicite. Parce qu'on parlait, le président, le premier ministre n'a aucune prérogative. Ousmane Sonko, de yow a justice de yow a justice dañ message pour nga wax scandale euh, euh, Ousmane Sonko du yow a wax ndax set laisse cette prérogative à la justice xam nga bu baax nag ñuy wax ak yow xam nga ko bu baax a baax a baax loolu xam nga ko bu baax a baax a baax a baax je vais pas en dire plus donc maa ngi wax ne Sénégal ñun ñoo ko bokk ce pays les gens ont ont fait beaucoup de sacrifices moo tax keroog bi ñuy voté la loi d'amnistie ma ne les morts vous écoutent les morts vous entendent nañu moytu par parparloo bi te waxante dëgg te yàlla tax nañu moytu par parloo bi te waxante dëgg te yàlla tax par parloo xam nga fan la commencé moy nga ne diw buy wax bu len ko déglu mais déglu ma rek waaye nañu fexé ba diw buñu ko déglu ce pays là c'est le terroir de nos de nos de de de de de mooy sunu terroir de cœur et de sang amuñu fenen fudul fi du ñu bàyyi ngeen ko yàq sénégalais yi faluñu leen pour lolu

dane dañ ne les président président conseil départemental yi ànd ak maire yëpp dañoo daje ne bu ñu sañoon nga ñëw ñu yóbbu la nga gis li xew fii may wax ak yow ils sol très en colère parce que dane leen loolu du ko mën man daal bàyyi leen ma comme léegi am naa roppalaan ba may wut nguur gi nag aw moom woon roppalaan waaye léegi comme am naa roppalaan léegi avec une bonne euh, une machine ak café yooyu yëpp ci kaw bàyyi leen ma rek ma nekk ci kaw survolé euh, ñu may toppatoo ci kaw su ma paree delluwaat sama dëkk delluwaat Ndakaaru Njaay C'est ça qu'il a fait. C'est inadmissible. Au même moment, il y avait aussi une danse du scalp au niveau de Dakar Arena. C'est inadmissible. Donc, entre Bakel et Tambakunda, la fa est ñaaw trop. Bougan Gueye Dany démb heure bi à pareil moment ci la tagato ak mom La tête de liste diko ko mom moom bañ ko indé Tamba diko wax diko préparer même ci vie carcérale de di partager ak mon expérience xam nga loolu gàcce la recul la recul bu mag moom moo koy nettali démb dañu fa fekk ay soxna yoo xamante ni ay ay ay maire lañ ay ay soxna yu baax démb ñu toppatoo ñu ñu le ñuy wax ne ko keroog bi ñu lay indi fii ñun ñoo la doon tertu kon waa Tamba tamit gàcci ngaalama tëdd liste bi dina si ñëwaat bu baax a baax a baax li may jeexale mooy di santaat bu baax sénégalais yi yi nekk si biir réew mi ak si bitim réew di wax ne liñ doon bañ démb di dànkaaf

doit arrêter d'utiliser les forces de l'ordre et de sécurité nañ leen dans tout ça Dembo, je raconte une anecdote démb bi de Tamba tok, mais démb ñi demoon toog foofu ci biir tribunal bi toog la ñu def mais du ay du ay samba boy du ay va mais ñu tok, ci biir tribunal bi tranquillement comme parce que am na ñeneen ñu ñu fa fekk ñu mais les forces de défense et de sécurité ñëw ne jot nañu ordre nee nañ ngeen génn ci mais tout de même nous sommes waxuma anciens parlementaires qui ont dit ñoo pour pour changer les conditions de ces forces de sécurité mais quand même nous étions avec le maire de la capitale du Sénégal c'est pas rien mais nous jël ñu nous, di ñuy biti nous ñu le maire a pris le soin de le dire est-ce que y a une assurance de sécurité suñu génnee parce que lu xew kon yéen les responsable donc vraiment euh, laa ne woon naa ko partager ak yéen di wax di appeler aussi à la mobilisation générale de tous les sénégalais Bougan Gueye Dany li ko dal ni ma ko waxee woon keroog ci gadda à bu mujj bu mujj ba bu njëkk bi né waji dafa waxoon ne quand ils sont venus chercher les musulmans je n'étais pas musulman sama yoon nekku ci won ma tok ba ci mané sama yoon nekku ci ba ci yàgg ñu ñëw chercher les chrétiens sama yoon nekku ci mané na tok

ak jom lañu bëgg am ak yeen insha allah taala du ñu nekk lu des députés du Sénégal insha allah taala dinañ dem gëna contrôler juroom ñetti milliards yi ñu ne nañ ko fële té ñun ñu commencé won sax suñu contrôle de l'action de l'exécutif ñu ne ñu du ngeen ko fi défé kon bés bu ñu joxee mandat yóbbu ñu assemblée nationale ci lay gëna neex dinañu gëna a joyanti li nga xamanteni ni loolu la fas yéene def ci réew mi encore une fois ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sante di gërëmat la presse di leen sant ci seen rôle bi ngeen di def faralu leen kenn dégg naa premier ministre bu génnee ne seen presse faralu leen kenn ñëpp ngeen fi nekkal moo tax yéen du ngeen toog ci plateau du yàq kenn du ngeen toog ci plateau du ndékkee kenn du ngeen toog ci plateau di añe kenn du ngeen toog ci plateau di njogonikoo kenn du ngeen toog ci plateau di reere kenn te loolu lu am solo la rawatina ñun ñi nga xamante ni dañoo gëm yonent bi salaatu wa salaam foofu laa jeexale dafa wax ne kenn ci yéen ngëmam du mat lu dul lim yéene boppam la yéene moromam mais beneen bi dafa wax ne ki gën ci yéen mooy ki nga xam nit ñi mucc nañ ci loxom ak làmmiñam loolu nag jàpp naa ne presse bi ñoom ñoo ko moom na ngeen fexe ba nit ñi mucc ci seen loxo mucc ci seen làmmiñ ndax Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nee na vous avez une mission prophétique et le prophète ne doit faire que prêcher la bonne parole asalaamaaleykum wa rahmatullah